aùzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbi sawiril waani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi yëkkati nuyoo bu ànd ak ñaan ak siyaara jëmee ci kaw ci kilifa yu tedd yi fi teew ñu jaarale ko ci sëñ Ismaayila mi toog mu jàllal ne ni ko ci Seex Mbàkke mi nga xaye moo toog tey ci bunt kër Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi siyaare mboolem ñi fi teew ñëpp ñi ñu tudd dañu ñu yóbbaale ñi ñu tudd bàyyiwum kenn di rafetlu bu baax jotaay bi nag daje bii nu di ko rafet lu baax xam ne bokk na ci daje yi lislaam yi di daje bu yàlla gërëm te daje bu yàlla gërëm yombut ci jamono jii nu ne waaye bii daje moom bu yàlla gërëm la bu yonent bi gërëm la bu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gërëm la ndax day day dajab lislaam lépp day lislaam day dajab njégal itam nga xay ku fi teew rek te teew fi ni nga fi war a teewee soo fi jógee suñ boroom jéggal na la dajab njéggal la ndax pàkk bi moo ko woote pàkk bii doon benn pàkk boo xam ne benn pàkk bu mel ni moom gisee su ko déggee su ko ci jamono amut fii la Cheikh Ahmad Bamba am fukkeet ak juróom ba dugg juróom benneel ba li fi liggéeyal yàlla ak ab yonantam waaye di xettali doom aadam yi di leen dimbali ci saayir ak ci baatin waaye ñim àndaloon te ñu jaay seen àddina jépp jënde ko àllaaxira fii lañ nekkoon ñu di bañ nit ñi tudde leen waa barsàq nekk àddina di dund ñu tudde leen barsàq waa bar barsàq kuñ ko tuddee xam nga ne mooy koo xay yow nekkatoo ci àddina ñu nekkoon fii di fi liggéeyal yàlla ak yoon bi ak Serigne Touba yor fi njaboot njaboot gi ñu fi yar yoroon leen fi njaboot googu di leen fàttaliku ne du du ñu ñu ñu fàtte sax waaye alxuraan moo ne fa sakkir fa ne secret tan fa ul moominiin yàlla moo ne dee leen fàttaliku ndax fàttaliku day jëriñ ab jullit. ni ñu nekkoon fii kenn du leen fàtte waaye njaboot gi nga xam ne dañoo nekkoon ak ñoom ñu jébbal leen ñuy ay ndaw di tuut tànk ñu nekk ak ñoom du ñu leen yar di leen wanale ci yoonu yàlla ñu dem ba tey ñuy ay mukallaf fàttaliku fi ñu leen jaarale seen xol sedd seen xel dal seen yaakaar gën a dëgër tax saa yu bés bi ñëwee ñu dajale seeni wërsëg dajale seeni jëmm dajale seeni xol daji pàkk bu tedd bii di leen fi fàttaliku di def ay ñaan di def ay mberde di jàng alxuraan di jàng salaatu ala nabi di jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi di def ay lixlaas lu ne ñu di ko def ci lu baax ngir yéene yenn yool ba mu delluwaat ngir jaajëfal leen ndax ñoo leen taxawu taxawaay boo xam ne benn taxawaay bu ne rafete amut rawatina ànd gi nga xam ne ànd nañ ko sax suñ boroom dafa wax ci alxuraan ne waxtasimu bi ablillahi jamian wala tafaraqoo suñ boroom ne yéen ñëpp na ànd doon jénn jëmm loolu nag bi ko yàlla waxee boroom xam-xam yi dañoo jàpp ne kon lislaam war na dañ mukk di bëgg société islamique société islamique nag weesuwul mbooloom jullit mu ànd ànd ak xol ak ànd ak yaram sësalante seeni wagg ba nga xam ne saytaane du mën a am benn bunt bu mu mën a jaar ba tabal ak yàq ci seen diggante kenn ku nekk ci ñoom lu baax la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom te ñu nangoo daan seen doole te tënk ko ci lislaam ndax lislaam liggéey la ak jaamu yàlla doxin woowu nag mooy doxiin bi nga xam ne mooy dundal mbooloo dundin wu rafet rawatina mbooloo moo xam ne bokk ak lislaam dox na seen diggante bokku jege ñaale dox seen diggante bokku dëkkandoo dox seen diggante te yàq yetti bokk yooyu gu ci nekk dafa am ay àq waaye ne ne matal ngeen àq yépp kon yàlla na leen suñ borom doolee taxaw ci saayir ak ci baatin kon bis bi ñuy wax bisu sàq barsàq bisu waa barsàq mooy bisu maam ma aram bésëb waa barsàq mooy bisab maam maxtaar ndumbe ma sancoon kokki bésëb waa barsàq mooy bésëb amaat ali buso bésëb waa barsàq mooy bésëb maam musa ñolle gay mooy bésëb maam ale sene ba demb binte maxtaar bis bii mooy bésëb maam demb bunna si bésëb tey jii mooy bésëb maam njàmme baaba ak masata baaba bisab tey mooy bisab sëriñ ngeen sëy bisab tey mooy bisab maam Demba Njare bisab tey mooy bisab maam Lamine Dem bisab tey mooy bisab maam Xaadi suran bisab tey mooy bisab buur siin waagaan fay bisab tey mooy bisab Kumba Mayaan Juuf bisab tey mooy bisab sëñ Xube Mamour Jabata bisab tey mooy bisub sëñ tay ba daqaar bisub tey mooy bisub maam Lamine Sarr mboolem fukk ñii ma lim di fukk ak juróom-benn fukk juróom-benn yi ma lim fii su fekkoon ne waxtu wi da koo maye danaa leen wax li ñu bokkantee ci barke boroom Touba ba seeni sët di yenn sët te seeni sët rek ñoo fi teew ci saayir ak ci baatin kon du man lu dul siyaare njabootuk soxna Faati Jaxate soxna Faat Jaxate ak njabootam la ñuy siyaara noo ngi siyaare njaboot ak soxna Aminta Jobbe ñi nekkoon ak moom fii noo ngi siyaare njaboot ak soxna Seyna bu Mbakke ak njabootam ñi nekkoon fii noo ngi siyaare njaboot ak soxna Mbiye Diop ak njabootam gi mu nekkaloon fii noo ngi siyaare njaboot ak soxna Jobbe Diop ak njabootam gi mu nekkaloon fii noo ngi siyaare soxna njaboot ak soxna Xaar Diop noo ngi siyaare njaboot ak soxna Aminta Diop noo ngi siyaare njaboot ak soxna Aminta Gaye noo ngi siyaare njabootug soxna ab Diop noo ngi siyaare njabootug soxna maam Faati Ñaan noo ngi siyaare njabootug soxna maam Binta Ñaan noo ngi siyaare njabootug soxna maam Roqiyatu Sugu noo ngi siyaare soxna Binta Guèye noo ngi siyaare njabootug soxna Faati Amar ñii moom lañ fi jamonoon teeloon daa leen fekk fii ci biir kër gii ci saayir ak ci baatin ne ëpp nañu ñooñu danañ ci ñëw waaye ñii nag moom danoo jamonoonteeg ñoom fii daa leen fekk fii ñu di nu jàngaloo ay xasida di nu waxtaanloo ci sëriñ Touba di nu binduloo itam nag amoon na fi wal baladu boo xam ne Serigne Touba ci jëmmam moo wala du wal baladu boobu njaboot gaa ngi dégg samay kàddu te ñu ngi toog wal baladu boobu jàkkay Serigne Touba ji ci la nekkoon ca buntu jàkk ja ñu bind ca xasida ak wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bis di rabbihi mbind moomee sëñ ma sàmm Mbàkke ba ci ante boobu bindaatoon ko. gannaaw ba nga xamee ne seng yi tàngoor wi lakk na mbind ma ñu soppiloo ko sëñ Mor Mbay Siise sama sang ba moom waa Barsàq bindiloo ko ko ba tey bañ demee ba mbind moomee euh, tàngooru seng yi jàpp ko man mii lañ woo fii sottiloo ma ko maa ko soppiwaat may bindaat mbind moomee fu këyit wa ma mën ne nekk tey saa mbind moo ca nekk waaye ñii nag laa daan fekk fii ci jamono yu nekk euh, ci saayir ak ci baatin waaye xam na ne soxna Aminta ma Samba nekkoon na fi soxna na xam na ne soxna Mariama Mbacke mi ngi fi woon soxna Xari Penda Fall soxna Astu Jaxate soxna Njaxat Sill soxna Faati Samba Diop ak ñeneen ñi ci des danañ ci ñëw dañuy tàmbalee ca xasida gi nga xam ne sëñ Omar Fall Pire moo ko def jëme ko ci njabootu Serigne Touba gi xaalal muridul faqir tawasulil yawma bi xaadimin nabi wa ahli baytihi sawi taqarubi tawassulil yawma bi xaadimi nabii wa ahli baytihi sawi taqarubi lu imminaa jature mun qutbil wara fatimatun ralliya anhu sul wara haysatun ahmadu habdullahi li faate samba min abibillahi wansu muhammadan li pende siise wa ummi kulsoomin min arraisi fa ahmadul yadaliyul mbakiyu li ummina maryama ya uqayyu mi wan bihi baaha rijalul layi mahan lada jihaati ilahi لأمنا أمينة المرلية من هاس الفخر بخير مريء خليفة القديم وهو المصطفى وأحمد اللمين من نال الصفا من الذي جاهد كل الله بلا سيوف بل بشكر الله لهمنا حواء مريم فالل فاطمة ممن له الفلائل فبين بيو قد أوت من الخديم فاطمة عليه رضوان الخديم li ummina ya saahi fatija fatima du maam mouhamadul basiru min man kaana imam suma laha xadijatun bilamtira min xayri nabin min rabbi sukra li ummina aïsa qul min alxadim mariama wahdaha farum ila alxadim fa sayidi ahmadou habdullahi najlil xadim ibni abibillahi li ummina fatima binti mariama habli biha xaysan muqisan rawma li ummina xadijatul kokkiyi rabbi halal قصيدتي مرلية هائسة محمد المختار هائسة من هو المختار لفات سلة أمنا المسهور محمد مسكو محمد مؤمنة مسكورة من سيدي من خد أول براتبا ولا يسأل قارئا وكاتبا بإمنا بنت مدن سامبلها فاطمة لا تنكرن فلها رقية مسلمة محمد kasaaka mu aymunu kasaak muhammadu roqiyatun muslimatun muhammadu habdul muhayminu kasaaka hamidu laha min alqadimi aylan murtala halal habibi laha min alqadimi aylan murtala halal habibi abadan xayru ila lumina min almusobi amina maymunatun min kulli haybin amina khadijatun laha wa abdul khadir min sil balaxati min sil balaxati fasihil mahiri lumina yasahi fati jaxate tahiratun wa salihun soo bahjati habdu ulufin sahilil qudusi wa habdu baaxin nihma jaar aisi min qudwati anisir almbakki rafixina wa jaarina alhaliyi lu'mina khadijatul piriya wa huwa alfatatul baratu taqiya aminatun habdu jamilun habdu alwahibu wahabi nihma alhabdu summa abubakrin kasa muhammadi min hasil qadimi nihma almufradu lu'mina fambiya maryam ahsanu aminatun qushasi mustahsana min khayri walidin أنار البلدا كما أطاب النفس لي والخلدا لمنا سيدتي مريما جحت صادق الألي تفهيما صعيب عبد الله صعيب عبد الأحد المرلي من خير ندب دونه تقي حوت من الخديم عبد الباخي هائسة بفعل رب باخي فخرسل قد أوت من الخديم فقد فقرسل fa xari sill xat xabat abdou samad min xayri walidin yejoodu bi nadat fa xari sill doonat agrarin laha may muudadu uxra fa ahrifiku laha min sayidi abdul ilahi wa xadim rasuli lmuxtaari habas alkarim lumina hanta min almusubi ahmadou abdoulahi min habibi xayru xadimin malahu mujaari إلى رجال الله مما جاري لأمنا خديجة الكوكية عبد السلام أم أمرلية من المجدد لسي خد جددا ملة سيد الورى وأيدا لأمنا يا ساي فاتجاختي سل أنلني ربي خير بحجتي فخات فاطمة من خير سيخ وسند خير ملاس ومهين ملتعد لأمنا يا ساي فات قج هائسة من خدا لي بحجة من صوره لهمرة وحجة وعبه خدا كفاني حجة فأمنا سينب مكة هاسد maymunatun aflalu bintu faaxat minal siif xawal xulaa fil qadami min man kaana lii fii abadin bil karami lii mina saydati maymuna jaxate xallit lii biha mahuna maryam bintu xaadimal muxtaari yi habdun alayhi habdun saar rilat baari maryama bintu xaadimil muxtaari alayhi sarmadan rilaawul baari salimatun bintu habibiya wajaar minhu man soo man soomatun li ummi tut xaa soxna xaar li mina sayidati aminatu yi jobbe aboubacar ilal fasa ilal wasitati li mina sayidati agiya aminatun xini biha rasiya fatimu umwa laha abdul ilah miman bihi rajawtu kawni naylla li ummina fatimata luxra ayla ya saahi ibrahima taaba rawla alal xadimi wa alal abnai wal ummaati akbaru lilwani suma alal muxtaari wala lil kiram wa saabil xuri salaatun wa salaam subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin xasida googu juróom benn fukki tur ak ñaar mi ngi ci fanweeri tur benn di tur yi ak benn di ay leer yooyu Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa moom la sëñ Moussa waxaat fii moom itam ci wolof bismillaahi rahmaani sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallima tasliman haasa sulamul haasiqin ila adrati al asiqin fi nasmi ahli sayxina ahmadul makki nafa'ana allahu bihim amin yaqulu Moussa ndaama day yuqoolu ndem jël bëgg naa jot ca la bëri ay njoolu yaqulu Moussa ndaama day yuqoolu naa jot la bëri ay njoolu ndaxte bu nekkee waaju am maqaama mu far ko toñ ko ci ndax njaamaa waaju amul war naa nangoo dagaani ci ko du jeele mbaag mu jëm yalwaani ku dul mërit war a farag laa ngam ga ku dul rëbbit war koo yoral loo ngam ga ku bëgg a jàll ak dex jubool ak mool ya mbaar ko mooy jësige ca seeyeel ya noo ngi dagaan ci yi sa doom yi ak darajay sa doom yi waa kër gi am sa koom yi jiwén lu bon bon war a xam ay sangam te sang yii way leen a dem way kàngam jiwén lu bon bon war a xam ay sangam te sang yi way leen a gën way kàngam sàmmaytuhaa bi matlabil haajiati fii nasmi ahli sayxi way sawjiati li tax mu di wolof li gaa yi jàngul ndeman na ma away ci xarab lu dëngul ci darajey doomi sëriñ Tuubaa yooyu fegal nu saytaane yi ak tubaab yi ci darajey taam ba nekk Tuubaa ak ñi ca firdaw seek ñëwey ba Tuubaa laa way kerkeraan bu jëm ci Bàmba ndax nuy dem baatinam bu bés baa ci darajey Muhammadul Kabiir lan ñaane Bàmba may nu may gu biiree ci darajey Muhammadul Yaddaali may nu maye bu yi ak lab di ali ci daraji ahmadou saaka moustapha lan ñaane bamba may nu fu nekk ta fa ci daraji ahmadou saaka moustapha lan ñaane bamba fu nu nekk tane fa ci daraji ahmadou waxwal faalilu may nu ngëneelal yaari kër ya nu falu ci daraji muhammadul laminu yàlla nu yooloo dénk moot aminu ci daraji muhammadul basiru bis bu nu faatoo nan la daal si siyaaru ci daraja yi kañ tudde Abdullahi nangul sunu jaamu joxal du laayi ci daraja yi kam ja Ibrahima fegal nu làmmiñ ak bët ak luy njuuma ci daraja yi kañ tudde Abdul Ahadi ak daraja yi kañ tudde Abdou Samadi def nu boroom tawxiid te def nu pas-pas def nu boroom tawxiid te may nu pas-pas te def nuy xilifa yi dees nuy rus ci daraja yi kañ tudde Abdul Baaxi ak turandoom wañu ne Abdul Baaxim def nu salar yu ñëpp dem nu des fu te sax ci ay ndigal nga may nu kas fu ci daraja yi kañ tudde Abdul Xaadiri ak daraja yi Abdul Jamili Saahiri dolli nu kattan te wéral machine bu te rafetal saahir su ak baatin bu ci daraja ak xayma ci abidul xuduusi ak muxtaari ak saaliwun ak ahmadul muxtaari ak ahmadul muxtaarim sellal nu tànnal nu jubal sunuy biir ban mel ne gaa yi nga defar ñuy say bër ci abidil wahaabi ibrahimu may nu ci biir ak biti may yu yéemu ci darajey abdul muhayminu nosal sun ruu yi wammat bu nu roy bu nu boyal su ci darajey abdul muhayminu nosal sun ruu yi wammat bu nu ray buñ nu boyal ci darajey sadiixu ak ci murtala ak ci abi bakrin saxal nu ci rila ci darajey amidu ak suaybu santal sunuy jëf te xamal nu xaybum ci ñetti doom ñetteela wuy ji lee yi nga tudd leen ahmadu abdullahi nan boole may yu jëkk yàgg yu mujj ya te nga fegal nu nattu yay dal xeej yàgg ci darjey muhammadu ak muhammadu ak darjey seen turandoo ba ahmadu rokkas nu baat na ngënee li tur yii lamb nu saayir sal nu mel ni bëri yi alayhimu rilwaanu rabbi naasi te yàlla xajal nu pexem xan naasi yàlla ñu aw seen tànki bàyyi nu topp leen te yàlla buñ leen nattu mbaa ñu jàpp leen doomu ju góore seeni way naa leen naa jéema way jigéen ñe dem xam naa leen doom yu góor yi seeni tur way leen naa jéema way jigéen ñe dem xam naa leen sunu doom yu mag ya ak sunu kër ndawyan ci darajey soxna su mag si Faatija yàlla nu ànd ak Faati bintul Murtaja ci darajey kañ tudde Ummi Kalsoom yàlla na sëriñ bi rafetal sunuy doom ci darajey Maryama soxna Kunta may nu ndax dun tayle dun fab kontu ci darajey Haisatun ak Amina ci darajey haïsatun ak amina bul yite woo kenn ba tax nga fàtte ma ci darajey roqiyatun wa fatima fab ma ma jëm kaw te nga yor ma atte ma ci darajey haïsatun ak amina dundal nu waddunu jëndal nuy damina may muunatun may muunatun may muuna tijjil nu ma nga siini barke may nu muminatun muslimatun ak muhsina xaylel ndoxam nga mi nga yor nandal nu ci darajey maskuratun xadija tairatun salimatun xadija sàmmal nu cër yi sàmm sellal nu yéena nuy sant ngay dolli te bul ne na ci darajey mariama suma maryama sumata maryama limay ñaan farnama ci darajay maryama suma maryama sumata maryama limay ñaan ma may nuy ngërëm may nuy dërëm seexal nu te boole noog jàmm ku yiw feexal nu ci darajay aminatun ak aysa loo deeti séddali ndaboot gu naafisa ci darajay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil xaatima faral sunuy xëyib musal nu ci kañaan jéggal nu sun mooy nangul na li nu ñaan fa suñu fi asmaay ma dellu teg ca doom ya seeni way jur ndax yàlla jéggal sunu ñaari waajur ma dellu tek ca doom ya seeni seeni waajur ndax yalla jéggal sunu ñaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal sunu ñaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yalla jéggal sunu ñaari waajur bi dara jaati lu mi aati may nu lu tax jigéen ñu baax ñu ñëw séyal nu bii mi na ma jëkke soxna ja ture ndaxte nu am ci dara jaam doom ju tari bii mi naa rakkam ja soxna mbiyee Maryama nan taqaloo bu dara tax nga sori moom bii naa mañ tudde Hawa buuso may nu cofeel nu sa ween nu muusu bii mi xamal nu yàlla bii mi naa muñ tudde pende siise yaatal nu jox nu bu nu kenn siise bii mi naa amin tin ma loo bi ummi naa muñ tudde amin tulloo may nu ngërëm nu mel ne góor ga santuloo bi mi naa muñ tudde pende buuyoo yal na nu Seex Bàmba musal ci mbooyoo bii mi naa muñ tudde faati hasana may nu huseynu dellu may nu asana bii mi naa muñ tudde faati samba yamal xiyaamati nu ànd ak bamba bii mi naa muñ tudde xaddi samba xajjal nu saytaade fegal nu sanba bii mi naa muñ tudde faati madu maam dunda dund far ba dégg maam bii mu naa mañ tudde Fatima du maam yàlla na nu dunda dund far ba dégg maam bii mu naa mañ tudde Haïsatu Jóob notal nu ruuy bu nu teg nit mu ne ciib bii mu naa mañ tudde Faati Silla may nu ngërëm te may nu mbég ak fulla bii mu naa mañ tudde Faati Jaxate fajal sunuy xaajo te far nu joxati bii mu naa Aïsatun ak Mariama bii mi naa ay ak mariama lu ma la moy moy bu mu tax nga mere ma bii mi naa tu tudde faati tuuti naddil nu bóot ya bu nu sompal tuuti bii mi naa rakkam ja soxna mbiye ya waxal na sun waa kër nu roy ca jiye ya bii mi naa mañ tudde faati xujja sarax nu jikko ju rafet ban xejj bii mi naa mañ tudde faati xujja sarax nu jikko ju rafet ban xejj bii mi naa mañ tudde soxna faatma ak turandoom yàlla bu waxtu faatma bii mi naa aminatin wa anta yàlla nu yëkkati nu mel ne jant bii mi naa xadijatin ma sant jóob fegal jëf xam ne jii dana nu joob fegal nu jëf joo xam ne jii dana nu joob bii mi naa xadijatun ma sant faal faal fegal nu ful nu fal nu leeral la nu taal bii mi naa xadijatun ma sant faal faale nu ful nu fal nu leeral li nu taal bi uminaa xadijatin ay jaxate sun xol yi teeyal ko xelaw bu mu naxati bi uminaa xadijatin ay sill duñu nuy ngëneel te def nu ndab yu sell bi uminaa may muunatun jox nuy may fii saayirin bu baatin te fekk mooy bi uminaa saynabu may nu ak nooy te may nu kersa te fegal nu ay dooy bi uminaa saynabu may nu ak nooy te may nu kersa te fegal nu ay jooy bi uminaa mañ tudde xujjëk kumba xajal nu xamal nu baatin xamal nu baatin te dijil te tijil nu kumpa xamal nu baatin te jil nu kumpa bi uminaa mañ tudde xaar ma santu jóob fegal nu xaaraan te wutal nu dabi ceeb bi mi naa mañ tudda xaar ma sant jóob fegal nu xaaraan te wutal nu dabi ceeb bii mi naa aminatin ay jobbe yal na nu mucc lu mbasak lu jàppee bii mi naa aminatin ay jobbe yal nu mucc ci mbasak luy jàppee bii mi naa mañ tuddee bii mi ma sant silla wutal nu ay super wutal nuy silla bii mi naa mañ tuddee faati mantu jóob fegal nu jëw tabbi ci lu tax ñu ne nu wóob bi umi naa bi ummi naa mañ tudde Fatimatu Jóob fegal nu tàbbi ci lu tax ñu ne nu wóob bi ummi naa mañ tudde soxna Jóob Njaay musal nu noog sunuy ndey ak sunuy baay bi ummi naa mañ tudde soxna Amar fegal nu ab xiif te fegal nu aw mar taxawlu naa fii la ma yàlla loo ki may digal sax moo ma far taxawloo taxawlu naa fii la ma yàlla yamloo ki may digal sax moo ma far taxawloo biis ni rabbi abidi rahmaani muusam ni usmaani ca lay baawaani ci daraje ku nekkoon jaariyam di kuñ xam ak kuñ xamul ak kuñ daariyam ci daariyem di kuñ xam ak kuñ xamul ak kuñ daariyem sunuy murit fegal nu seeni aajo suñu jigéen jéggal nu seeni gaajo mboolem suñuy bokk ku yaakaar bamba yal na nu barke boy bi dal bu bés baa mboolem suñuy bokk ak ku yaakaar bamba yal na nu barke boy bi dal bu bés baa amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa man walaahu muhammadin wa alihi wa sahbi wa kulli muntamin loo fi l isbi wa radiyallahu anil xadimi ma atala mi sati bil maxdumi subhana rabbika rabbil hissati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina mu jóg bégal muriti sayxi bamba ci wolofal ndax ñu fegal ma san ba mu jóg bégal muriti sayxi bamba ci wolofal ndax ñu fegal ma san ba mu jóg bégal muriiti sayx yi bamba ci wolofal ndax ñu ma almasan ba ngireeg sarax def da ca sippi bàkkaar te wax ju neex sarax la ndem du bàkkaar it qaalu xayrin wa sururin abata ala xulubil muminina ya fata it qaalu xayrin wa sururin sabata ala xulubil muminina fata ku yéewul waru la yee moroomam ku yorwul mënu yar ay maasam waaye dañ tee ma jóg di di sakku barke waaye du tee ma jóg di sakku barke di way Sëriñ Tuubaa sangu waa Mbàkke yii moo waral fii leetil xamiisi ci weer wi Seex Bamba demoon Sanusi ma fokk fanaana xoole ngir sun waaja ngir di xalam mbirum borom jumaaja fekkoon may nisar li wa ci lay ay fani fan way ko bi duuni lay ngir li ma gis ci moom ci xeeti xar baax ak nga neel saa xol bi di tëdd nag suux ma yeewu naa ko xaadimal muxtaari wuyu salar bu woon bi lay si aareem yow la ñu may kun fa loo atte mu daal di am fa saasa bul nu fàtte yow la ñu may kun fa loo atte mu daal di am fa saasa bul nu fàtte la daa xëccoo ci ay maqaama am nga ko ci raw soga si bu gaa yi daa xëccoo ci ay maqaamam am nga ko ci kaw soga soobu ngir ma leer nga péye dolli ngay karaamam gaaña ween rew ya ka am jaaraama dolli nga waa bar sa xaay teraanga teyeg alak fegal nga ren yaraanga yaa xami ma nga siini rabbi neesi fegal nga say soppe pexem xa neesi diina jiw lay puukaree fa yàlla yow la takaayoo mbakk yaa xam yi la yaa doon baatinab rasulul mustafa naka nga taawlu tudde am dil mustafa sàmmal nga gaaña jiite woon ca baawoon ñëpp a ngi bil ca ñaawoon dëggal ga woon ca babacar siddiqum tawfiq Cheikh Seydi Omarul Faaruuxu nga boole balla ma aram yaa ji teen bu wiis yaa jajji teen bu wuutu biiru sam-sam kersa ga nga doon yaa yeesal mbirum Qur'aana wóolu ga woon ci wàlli di sibta yi ni nga boole ak njàmbaar ga doon may ni ngirum tasawuf yaa ca raw junay di sa gaal gi kum yóbbaalewul moo tardé sañ-sañ ba woon ca Seydi Jiilaani boole nga ko sëriyahatu Tijaanim yaa raw xasaali yu ci fànni xam-xam xëccoo gulaanu adunaakab am am yaay sant yong bagaaye daa misaali ci seeni téere yaa nangu fab yóbbaale yaay sant yo ba gaa yi daa misaale ci seeni taalif nang nu fab yóbbaale yaa joti diine ba mu demee maa yomba ca njafeel yaa bu géej ga bamba sigal nga alxuraan waxal téeréem ba waaja suy jaafire jaajëf bamba defar nga ay bër boole leen ak mbooloo ba seeni doom ak seeni sët am mbooloo waaju la waayoo dal di raw moroomam waajoo gërëm mu gën gëndaloog boroomam ko yewi koo fi yow nga booleeg mbooloo sama samaraay ab jant am wusuulum taalifi nga fànn yëpp balla ay sa sa ndam du suulu mbàkke yaa di gorsem jéggi nga màqaamay jaari laahi jëmmonte nga ak ahlu badar billaahim gannaaw rasuulu kenn gisul jibriilu kulul sëriñ tubaa borom jëmmiilu xaalim yi daa rawante yaa leen semmal sëriñ bi yaay kenn sam kem feeñul sa wi mu ab la ci diini lislaam sag làngatal na nag may maraam ku la daal di tàggoo ak bàkkaar ku la dëkkal dëkk ak rasul doo ñaar yaa yaatu yaa tabe te yaa dib docteur yaa gore yaa ba rawale waa kajoor yaa am lu kenn amul la jiitu adama jàmm nga yàlla ati at lii biir na ma kenn mënu laa suufeel ba tax nga suufe waaju la weddi dara jaam ja suufee sa sellu goo sellaale guuru mbakke ku ne junne ci ñoom nga may ko barke sigal nga waa mbakke sigal ngu soobe defar nga néegab seey defar doroobe yaa tax ba doomi soxna yi woyaflu sàmm si tuub sëriñ bi yaa selnglu yaa tax ba mbër yaa tax ba waa gànnaar diraamu Sénégal di saddi taalif yaay xalifatu rasul sëriñ Mamar Bay Siise soppe Bamba xawsul wara fil asri neel raaray ba nee na ku nekk la mu doon ci Bamba moo ko defal lam xam yëral ma day ba ilal ma waadataa wëral sërif ba def ko jox hadiya ngir yonnen ba sëriñ bi am na ba sal ci boppam te kenn taxul bul ko werante lii am Cheikh Bamba yaa raw kaxabak asaana tagg Moustapha bani adnaana fu njànge saw ah, taalif sa gaay sa malaaka yi sa balaka yi yëggaayu isa xawsul wa sabat malaykati baax yi yaa ame caabi magasin nguur gi yaa jëru jox addiya màggal nguur gi waaju loo jox addiya tàggoog bekkoor ku siyaar bu ñibbi tàggoog bakkaar bambaaw ko wax gaañe de bon sar saara siyaare daam tàggoo nañoo aw saaram yaa atenaar ya daa weranti mahiya leeral mahaniya weral mahnawiya kenn woo la wax fóore kenn warul laa wax fóote fóore mbaati alim ma foos nga daa gàggante yaa di alim kenn warul laa wax fóore mbaati alim ma foos nga gaa gàggante yaa alim kenn waru laa wax fóori mbaati alim mos fóos nga gàggandi yaa di alim foo ma sa teew mu dal di mel nepp marché kenn waru laa sànjaaka dox di forcé yow foo fanaan sikar la ñuy fanaanee foo wan gannaaw sa mbir la ñuy waxtaane loo jublu yàlla dal di jub loola loo dëddu yàlla buur ba dëddu loola gaañ a sayit xare badar ngir wóolu ànd ak rasulullaay ngir wakiilu ñu ngi lay siyaar di dem di del si yaale ngir li nga xam bi xidmatil xaliili xam-xam bu doon géej yaay ko dem ci ba naan nga ci leeri xëy bu ëskay bambam sanc gaay njéen di tabax ngay jàkka ko fa siyaar mel na siyaar na màkka yaa dami mulkeeg malakuutu lay say leer ga ndoog leeri rasulullaay sa tur wu siiw na woo nga ahlal barri penkooki sow nga ahlal barri samay gi fu mu jublu mu mel nem wotoyde yo araw ceeɓo jirmi an mboolem ko nekk mbaayo mbaate muli layif nguyew nga waayo dawoɗamo kasu ɗohdi waare dawoɗamo ka kasu ɗohdi waare dawoɗamo kasu o ko ɗohdi waare ko tabbi cib holam du tabbi naari waƴule si yo hiɓɓuni yeɓ yellu yomo wuju o sooda tabi yellum sa yita joyi durus kitaballahi yi sama ngay tagg rasulullahi musulam soxla ba wàññik jaamu jubóog borom xars damasdi taamum wakiilu ak faj ajo tay wakiilu woyof lu ak wakilu tey faj aajo mu ak lewet cey balla ay saak saajo am jàmm boole ko bari jaloore maanaam nga lottal na ñoo doon ay fóori mosula jëf ruqi sa mbaa dagan na lu ñëpp xam lay jëf du ju yog sunna diifu ko jàmm mosula doon maamuuna fu masarom bu ñëpp xam ne mooma daawul nelaw guddi du lekk ciw ñam weesu ñetti tib bi laay lii am mosula nekk fenn ngir sutur lu naka jóg leen fekk mu sarang lu xàkkiim la woon fu masa lu yeete waaju ko noosoo yiwu yokkul joote teral na laar teral wolof ak soose yeesal na ponki diine naatal suusi bilaayi sam kem mës la feeñ ci duniyaa te dootu feeñ mukk bi dooni sun yaa yaay mufradum àllam bu leen ko jamhu wala sulaa tasniya sàkkaa jamhu banam ba mee xooyañ omarul fuuti yu bu mu wëndeelu kooka muy suufi yu di diine Moustapha mel ak ca jiitu la jiitu te yoonu Bamba mel ci yoon yi jiitu ngir Moustapha xaatimu lan bi yaay Cheikh Bamba mooy xaatimu law li yaayam su ngeen ma dégloo tuuti yéen waa Sénégal bamba sayidi rijal su ngeen ma dégloo tuut yéenu sénégal ma wax fi tuut ci bamba sayidi rijal bu di woyofal sëriñ yi ngir kañaan ngir moom la réew yónni ngir moom la yàlla yónni réewum soodaan tagramul ibadu indallahi ak sarum taxawan bilastibayi déglu ma dellu wax la nga wóolu mbiram yën dëppoog mbirum rasulum ngirum saxal moxtaari suufus màkkam ca la juddoo fekkoon na foofa jàkka nee nañu amal fii li mooy taarix ba ba ñu ko yónnee la sañ ci tay ba am nañu fukk am na fa fukki at sotti Cheikh ma nee nañu ca ama saraha te feeñ ci duniya am ñu naa bi saraha ca suufu Mbakke googu bawal fagg arba li la ñu siiwal seeti leen taarix ba marhaba soxna jaara yaa xam daraja sa doom ji kum gërëm mu ànd ak maxraja marhaba soxna jaara sa doom ji kum gërëm mu ànd ak maxraja ahlan wa sahlan yal na yàlla sa fay la ahlan wa sahlan maa ngi lay siyaare ku wër sa xabru bu bu delloo waare jaaraama soxna jaara yow lan yaakaar sa dooma tox Mbakke di xotti bil waar marhaba soxna say borom martaba saaroy yaraaru ak xayra mat la ba ahlan wa sahlan yàlla na yàlla fay la wa xadri saat sa doom ju mbër la ba mu amee ndigal ci ber aw yoonam min mustawal muxtaar may wasilaam la daal di mbakke sañ ci Touba mbakke tey ba moo di Touba nga ne li Cheikh Bamba mu ne su koo lim mbirum Serigne Touba mu ne su koo ma soobi gëm ba nekk saalikiina ak naa jaamukat ya nekk naa sikiina ci leeri Bamba la ñu nite ngir ma jaare ma maami mbër ma sañ ci dar ma mbirum Serigne bi ak njëriñ la woon bu fu mu toll baawaan walal na waa dëru walal waa gaawaan lim def ci ay xar baax muy su ko lim lim def ci ay xar baax ci réewum Soodaan jomal na gaaña askanoo ca biilaan la dali biir kajoor ba réewum njàmbur raam noo leneen baa doole mbaate muy buur sëriñ so doon tàddeef ba ñuy barkeelu ci seeni daara ñuy boroomi mbooloo raam loo na leen ku nekk naa ko mbakke yaa xame caabi ma nga sii ni barke seexal na seexal yu seex yu seexal at ay mbooloo seexal na seex yu seexal at ay mbooloo joxeen lu ëpp xel jëfam du suulu yaa atte yaa atte ànd sëriñ bi bul fàtte gaaña ànd sëriñ bi bul fàtte gaaña àndandoog seriñ bi di daw guddi guddeeg bëccëg li wacc ci rab bi ñoo gore ñoo maandu te ñoo am daraja ñoo saraw nu ŋàññ ñoo am maxraja ñoo àndandoog sëriñ bi réew yi gànnaar ak jolof di tumuranke ñooy góor ñoo wuutu gaañe woon badar billaahi yaay seen bakkan ànd ak rasulullaahi ñoo ñaari aarifiina ñoom laa wóolu ñoo bari ay jaloore ñoo wakiilu ñoo jar jox hadiya tey siyaare ñoo ñaa sigal Cheikh Bamba doomi jaara am na ci ñoom ñu gëm ba faj ma sóobu am na ca ñoom ñu gëm ba far ma sóobu far bàyyi julli aw ca ngiir ma sóobu te jannatul maxwa la ñuy fanaane te jannatul maxwa la ñuy fanaane dëkk ak rasulullaahi daam di cuune am na ca ñooñ fu ñu toll fu ñu masa toll luy taalif na Seexu Sàmba Jaara moo doon xaarif am na ci ñun daanu gis rasoolu na ko ñu gis sëriñ bi am wusoolu am na ci ñun ndaw ya daf daa yaale yor sëriñ ba la ñu am li luweel yi daa nga ci suñu ay ndawam rombante te duñ xamante am ci ñuy yóbbante am ci ñun dañoo gëroog sëriñ baa ba nuñ faatoo ngir gëj am rabba am na ci ñun daawuñu tekki laxasaay guddeeg bëccëg fu ñu toll mu ne leen kaay am na ci daawuñu toog fekk làgg am na ci daawuñu toog di làngale fuñ ma sa tolluy jàng mbaa ñuy jàngale sëriñ bi duy na leen ci leer yi baatin ba ñu duyal ñeneen billaay yi duy fen kuy tagg bamba war nga faa taggaale ñi ànd ak ñoom fu ñu tolluy ñaale ngir moo di ilimaan ja ñooy ma moom ya fu ma sa jëm ñu dar ko yëri yëyeem ya seen ñaq waa waral ba xeeti sikki ñu di ko xeeñoo tey bi xëyri sakki xel ñu daa dawal xadimu taaxaa moo tax wataak saxar daw ne leen xaa seen buus ya ak seen buus ya ah, seen seen marwa ak buuse ñu daa moo wàcce kees yi li meraat yi daane taxawlu naa ci ñoom ci li lim doy na kenn mën la lim seen i ngëneel ngir na sëriñ bi Mbàkke li nga def ci saayir kenn mënu koo lim Mbàkke ball yaay de wër yaa dem ba géeji Kongo ak Conakry raw nga ralaale nu wallaahi yaa gore sax lima liberté réewum senegal liberté gànnaar yaa di mu njëtu rijaal sa xalima liberté di um Sénégal liberté gànnaar yaa di mu njëtu rijaal bi lay yow yaa tax ba réewum soose xëy jàmbu dal di àndandoog français réew yëpp yaa leen may bi xëyri sakki luñ mës la am sa sangu waa Mbàkke bii loon ak Soudaani yaa leen boole sembal nga xamal nga leen bi xidmati rasulim ngir ka defoon xaat ka defoon daawuda ab xalifa ci sooso kooka def na ab xalifa ngir ka defoon daawuda ab xalifa ci suusi kooka def na ab xalifa yaa app ab sañ-sañ kalaamu li ay yaa gën a da dumbar ma ruuhu li ay alayhima salaamu rabbi naasi te yàlla xajal nu pexem xan naasim alayhima salaamu rabbi naasi te yàlla xajal nu pexem xan naasim yaa wutu yonen yaay borom maqaama yow rek yaay yoo ñu naa jaaraama yaa wutu yonen yaay borom maqaama yow rek yaay yoo ñu naa jaaraama sant la war nanu ndi yaa di arif jaaji fi bàyyi mbar ma sañcoon te ayif sant la sant la war nanu ndi yaa di arif jaaji fi bàyyi mbër ma sañcoon te ayif ak baloor yi yaa leen indi jaaraama bàyyi mbër ma sañci ndi ndi sëñ su mag si yow la ñuy siyaara nan sa mbir mu mag ma bàyyu baara sa ñaama goo toj xol yi naatal soosim yaay bàyyi seex yaay bàyyi mbir ma sëñ ci tiibu naf si yaa ami caabi ma nga sii ni yaay bàyyi seex ab du ma woon ca dër ba yaa tax ba duy yaay bàyyi mbër ma sanc ci bukki barga yow loonu wax yoo mbàkk yaa doy saatir yow yaay di bàyyi mbay ma abdul xaadir yaa nu fegal yow mal xiyaam ja iima yaay bàyyi xilulaay ibrahima dolli ñëw Mbàkke sama yëq a njul sa dooma gor diggante bay laa ak njurul yeesu jaam ñi yow bil sa banque yooyu mii di bàyyi Cheikh su ay bu Mbàkke sa póot mu set mu tee nga noo yóbbaaleem yaay bàyyi Cheikh Abdou Samat yaa baax le sëriñ bi yow nang nu fegal su alxalaa yooyu mii di bàyyi suñ sëriñ bi Murtala taxalu naa yal na sëriñ bi boole yoonu murit bañ ànd doo am doole mucc ci lépp lu gënul bi bés baa mu mboolee leen yóbbu ci kër yoon nen baa wooy wii la yal na doon jubóog murit yi te yal na na saxal pexe murit yi ba yàqkat yi ñëpp bokk jaaxle ànd ak ñoo sëriñ si baax le amin ci barke Moustapha ak rakkam ya ak darajey Cheikh Bamba ak seexam ya jullit ci yoon na ñëw tefar taxawlu salaa alayhi laahu moom lan wóolu waali wa saabi lax bi abi yomal xiyaam yàlla nu gis sëriñ bi ñu ngi sant sant bu baax sant bu baax yàlla na yàgg sëñ Ismaïla jataay bi yàlla na yàgg yàlla na ngeen ko yàgg def te lépp boroom nangu ko ci saayir ak ci baatin koy damoo ku ne de daf lay damoo koy damoo ku ne daf lay damoo danaa wax nag naan ci ñett la gën a niwoo diggante way jur ak doom diggante ab sëriñ ak taalibeem diggante soxna ak borom këram kenn ku ci ne damoo day damoo ko ca des ku ci ne ka ca des bu ko sëggalut siggal ko ab taalibe day si day moom ab sëriñam ab sëriñ day damoo taalibeem doom doom di damoo wayjur soxna day damoo borom këram borom këram it di damoo soxnaam kenn ku ci ne bu ko sëggalut siggal ko yéen sëriñ bi siggal na leen waaye siggal ngeen ko ndax bis bii day. benn bis bu ñu toll ci diine lislaam amut daa mel ni nit ñi dañ koo réere waaye bis bu ñu toll amut bis bii wallaahil asim bis bu ñu toll amut ci diine lislaam laa wax ñu nekkoon fii ànd ak seen jàmbaar ja di leen fàttaliku suuf sii day bis ba muy wax ci ñoom yal nañ ko fekke suuf si dana leen wax suuf si seere la dana ma sa wax de yàlla dana ko wax loo ñi moomoon teen bii seen jàkk ya nekk fee seen bis bii àddina jëpp a ko war a yëg addina jëpp a ko war a fonk lox lu defar tey ak ëllëg la lu defar tey ak ëllëg la bis bu rëy la bis bu tedd la benn bis féetiwu ko yàlla na ngeen ko yàgg a taxawee yàlla bu leen dara dogale yal na ngeen fi yàgg ci barke borom Touba Xaadimu Rasuul barke pàkk bii nga xam ne dana ma sa wax li fi nekk dana ma sa wax garab yii fi sax suuf si ndox mi lépp dana ma sa wax bis bu xalima yi Serigne Touba yi di nettali mbindum sëriñ Touba bu keroogee la suuf si di wax xalima yi danañ wax. mboolem xalima yi danañ ma sa wax li sañ Tuubaa bi lépp ko si xalima yi danañ ko nettali maa la wax loolu man mbay bis boobu yàlla nañ ko fekkee ndax ku ko fekkee taxe nga maa ngi bëgg a jàll baax na foofu